sëriñ bi te fas yéene rek nekk rek ci li mu nekk loo muy li nekkoon rekk ak lu nu jafe-jafe te doyloo ko sëkk ndax fàggul nañu lépp lu mu nu war a fàggul tey ëllëg fàggul ko lu mu war a ñaan boroomam tey ëllëg ñaan na ko te juboo muy pàgg bi tey bi juboo na ci boroomam bu dee ñaan bi boroom nangul na ko ko kon kay dara warul lu waxtu wu ne ñuy gën a wéetal yàlla waxtu wu ne nu gën a sax ci jaamu yàlla sunu kem loolu mooy sunu wartif euh, àdduna moom mel na melo bi rek la am sa mu sa jàgg kon tolluwaay bi mel na ne am na nay fitna am nay ay tiis am nay ay jaaxle waaye yooyu yëpp du ci dara bu nu nekkee ci leen war a nekk du nu yëg fitna fitna jenn ju nu ya ju nu gàttandu du nu jaaxle ci dara ci metti mbir kon li nu li nu jikk loolu rekk nu jikk wéetal yàlla sax dàkk ci jaamu ko nekkal sëriñ bi ci li bëgg doyloo ko ci lépp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 wa ma xalaqtul insa wal jinna illa li yabuduni wa ma xalaqtul jinn wal insa illa li yabuduni loolu rek doy na sëñ bi moom looloo ko fi andi woon moom la fi nekkee woon boole ci nag di gindi jaam ñi ci seen boroom di wommat jëmalee seen borom sëñ bi loolu rek la fi nekkoon loolu ko fi ci loolu rek la nekkoon kon nag ñun sant rek lañ war a def suñu borom mi nu sëñ bi sant sëñ bi nga xam ne doon sëkk biir bi tey ak ëllëg sax ca dàkk nag eh, ñoo ngi eh, jéggalu ñëpp. balu xaq ñëpp di ñaan ñu balonte xaqam ñëpp eh, loolu nga xam ne mooy sunu mooy sunu mooy sunu liggéey buñ ca nekkee ak ak jariñoonte rekk moo ci juddoo ak ku laabirante ak ku dimbilante loolu rek moo lañ moo ci juddoo kon nañu góorgóorlu bu baax nañu góorgóorlu bu baax a baax loolu rek mooy kàddu yi nga xam ne eh, sama bopp mooy moom laa sa jiital ñu jiital ca samay bokk sama bokki taalibe sama bokki jullit loolu rek mooy li nga xam ne dara jigunu ci dundug àdduna gi waxuma laa dundug àllaaxira gi dara jigunu ci loolu taxaw tem ci li ñu fi andi muy jaamu yàlla te sax ja dàkk gannaaw ba ñu ko wéetalee nag ci lépp xam ne mooy def mooy dindi noo ngi sant ñëpp di ñaan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 jaamu yàlla moo moo moo yombul waaye mel na ne kenn ku ne ci ñun ñu ngi ciy def kem kàttanam waaye nag màggu son sunu borom bi mu néexu sa jox jox ak xam bu ñu xamoon lenn loo ko xam ne dana ko jox ak xam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 suñu borom jaam moom yëkkati mag màggam gi rekk la te loolu mën nu koo def ba def ci ba jox ko àqam moo loolu mooy mooy junj junj boobu waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin mën na noo am xel soo xel mën na noo daal mën naa daal bu baax a baax a baax ndax sëriñ bi ah, sëriñ bi moom